nuyu champion yi suñu grand yi suñu morom yi suñu papa yi même suñu jigéen yi fi nekk ak journaliste yi ñëpp ñu ngi leen di mais ñun mënuñu waxaat leneen lu weesu suñu grand yi lu wax ak suñu frère Boy Niang lu mu wax ñu Papa Sow nekk suñu grand frère lu mu wax ñun mënuñu wax leneen man damay wax ne di wax ne Boy Niang man yow laay wax ne di lay wax ne lii nga def. nit mun naa am ay junni junni junni junni junni daraja te du def lii nit mun naa yor lu dul jeex te du def lii mais lii bu amee ñun dañoo war a wax li nga xamante ne tey mooy li nga xamante ne moo ñu tax a jóg mooy métit maanaam fu mu méttee fu mu méttee ñun romb nañu ñun jafe-jafe bi ñu gën a am xam na ngeen wax si làmb wax ngeen si làmb ba pare te li ngeen wax si làmb ñun biñ si jaaraane day nekkaat loo xam ne dañ koy répété Baye Mandione mu ngi wax sànq mais lu muy waxee moom xol lay waxee parce que buy waxee xol moom mun na wax sa tuñaan parce que moom xolam lay wax ragalul kenn dëgg lay wax mais tey xam nga dëgg boo ko jëlee suukar ko ba mu sab nga joxoon nit ki da koy naan ñun loolu la ñuy def man côté bi may waxee mooy jeunesse bi jeunesse bi waxuma làmb de man damaa romb làmb mooy nit ñi ñu dañoo dëkk ci banlieue fi nga xamante ne foofu la coono tàmbalee man damay yeewu ay nit taxaw sama buntu kër parce que alxuraan damay war a ndékki damay bàyyi sama ndékki jox nit mu ndékki lu tax ma koy dund man mën naa ko mais est-ce que keneen mën na ko nit ñi liggéeyuñu nit ñi amuñu dangay ngay sa yaay mu soxla junni nga koy xool nii te mënaloo ko kooku nga dem si géej gi xaru dee sax moo la ko gënal nañu état jàppale nañu état jàppale ñu nekk ñu ay noonam ñun ñoo koy xeexal pour mu jël réew mi moom bu soxlaa lu baax si ñun lay ñëw. kon te ñun bu ñu soxlaa suñu kàddu am lu ñu métti am loo xamante ne mooy suñu rongoñ di xonk da ngay jàkkaaroo ni man waxoon man damay dem ba sax damay jëlale laa ma billaahi yàlla donc moomu tamit doonte xale laa ndax man damay gis koo xamante ne teg ci nam du si am dara lu ci def te am ay ay ñetti doom ci biir kër mais kenn liggéeyul da ngay ni ngay xëy loolu ngay wàcce mais 1000 francs yooyu nga def transport pour dem sax. yow boo sañoon yow nga joxe ko dépense ba ñu xëy toog si kër gi nañ ñu jàppale nañu état jàppale ñun ñuy jàppale nag mooy ndaw ñu liggéey mooy ñi am xel ñi am xel mën a dimbali keneen ak keneen ak keneen ñu jàppale ko xelam boobu jariñ keneen ak keneen ki am doole ñu xëcc ko ñaata hectare ñu nekk si àll bi ay tubaab ñoo koy jariñoo ñoom lañ koy jox ñu ñëw fii jël suñu emploi da ngay gis emploi yoo xam ne dañuy ñëw si biir dëkk bi fii nii gis koo xam ne day ñëw investir jóge siin wala feneen ak feneen ñëw investir jël suñu kàttan di koy liggéey bu ñu waree fay dix mille francs di ñu fay ay mille cinq cent te ñu suñu nijaay wala suñu mbokk moo ko naan ko ñii ay dof lañ boo leen fay mille cinq cent sañu liggéey parce que dañuy liggéey ndax gisuñu dara président jàppale ñu boo ñu jàppalee sa bopp nga jàppale boo ñu jàppalee sa njaboot nga jàppale xamal li gën a am sax ci àdduna mooy ndaw ñi mujj bu ñu waxee boole la ci boo fi demee ñu bàyyi fi sa empreinte kon ngelawaay ñun suñu avenir moo ngi nii sa loxo jox nañ la ko ñun jox nañ la suñu lépp parce que alxuraan man xol laay waxee man soxlawuma dara mais li may gis bëgguma ko gis président dimbali ñu bu dee góor nga góor góor dimbali ñu waaye ngeen baal waaye